convocation à 15h. Je tenais à remercier déjà ceux qui étaient là dès 15h, notamment Nyom Youssou, voilà, qui sont vraiment venus à, à l'heure. Euh, les autres journalistes, comme vous le la pluie, c'est pas évident. Ils sont en cours de ils arrivent. Mais je tenais avant tout à vous remercier. Euh, Kelly, waxal ak Je tenais vraiment à vous remercier d'être présent avant tout. Alors, euh, nous allons faire un historique. Nous n'avons pas commencé avec euh, Diane Didier Sakoufi. Il y a deux ans de cela, nous avons lancé un concept qui s'appelle Solofi. Solofi, qui veut s'habiller local, s'habiller chez nos artisans. Nous avions fait une remarque en tant que, bon, on nous appelle des activistes, hein. on a l'habitude de dire le patriotisme, etc. Mais qu'en général, quand on le fait, on s'habille en Nike, Adidas, Reebok ou j'en passe. Et pour nous, il était vraiment temps, dans le cadre de Solofi, de joindre l'acte à la parole. Si on parle de patriotisme, il faut parler aussi de patriotisme économique. Ce n'est pas normal de vouloir que notre pays aille de l'avant et qu'on n'achète pas chez nos artisans tailleurs ou chez nos artisans cordonniers maroquiniers. Que ce n'est pas normal qu'on se dise patriote et que quand on sort dans les plateaux télé, on est habillé avec des vêtements de marque occidentale américaine. Et c'est depuis lors, c'est depuis qu'on a lancé le concept Solofi Depuis deux ans, moi, tout ce que je porte de la tête aux pieds est fait par nos artisans tailleurs sénégalais. Ils sont de Dakar, ils sont de Matam, ils sont de Kola, ils sont de Ziguinchor, un peu partout. Depuis que j'ai commencé à poster sur les réseaux sociaux, c'est eux-mêmes qui m'appellent pour m'envoyer via Facebook, Simon, voilà nous ce qu'on fait en termes de chaussures, voilà ce qu'on ce qu'on fait en termes d'habits, etc. Et Solofi, la première campagne c'était dallu fii lay sol parce que durant la tabaski retenez bien durant la tabaski les sénégalais achètent en pour pour les marakis en termes de marakis 40 pour 40 milliards pour 40 milliards et c'est un chiffre entre 40 et 45 milliards et ça c'est des marakis déclarés te yéen xam ngeen sénégalais yi lu ñu dul déclaré moo ëpp li ñuy déclaré Donc ça veut dire que ce chiffre-là, on peut vite fait le doubler, le tripler. à 45 milliards qui vont dans chaque année. Alors que, ou à village artisanal de Soumbodjoun, ils font des marakis d'excellente qualité. Ceux de euh, Ngaï Mekhe, ils font d'excellente qualité. Le village artisanal de Saint-Louis, de Thiès, de Ziguinchor, d'un peu partout, les artisans d'un peu partout, de Sétou, de Kolda, ils font babouche, d'excellentes chaussures nuit-pieds, alors qu'on les laisse ici pour aller acheter des chaussures chez d'autres. Ce n'est pas normal. Donc nous avons lancé la campagne Djangidje Sakofi. L'année dernière, à Tamba, avec mon frère ici présent, Moussa, nous sommes allés jusqu'à Tambacounda pour lancer la campagne Djangidje Sakofi. Aller à l'école avec des sacs confectionnés par nos artisans. Et à ma gauche, vous avez Moussa qui confectionne ces sacs. Ces sacs en que vous voyez est confectionné par ce jeune. Les sacs en wax que vous voyez est confectionné par Diouf qui est à ma droite. Donc nous avons lancé la première campagne l'année dernière. Donc actuellement, il est aussi question de lancer cette campagne Djanguidje Sakoufi pour dire aux Sénégalais, pour dire aux Sénégalais, en tout cas à certains Sénégalais, ne nous Et j'irai même plus loin. pour certains Sénégalais nañu bàyyi soxor nañu bàyyi méchanceté arrête parce que moi je peux qualifier ça que de la méchanceté je ne peux pas comprendre qu'on ait des artisans sénégalais jeunes qui n'ont pas pris la pirogue pour aller à, en Espagne ou je ne sais où qui n'ont pas voulu être des agresseurs qui n'ont pas voulu chercher l'argent facile mais qui se battent pour confectionner des sacs comme ça ñu leen ko fii bàyyi di dem jënd ay sacs chez les chinois chez les japonais chez les russes chez les turcs alors qu'on a nos frères sénégalais ici qui confectionnent d'excellents sacs et d'excellente qualité donc j'ai envie de dire encore une fois xam naa ne ñu bëri lii la ñuy titre Simon nee na na sénégalais bàyyi soxor déedéet na yenn sénégalais yi il faut yenn sénégalais yi nañu bàyyi soxor parce que yenn yi soxor la on peut pas avoir nos frères à côté et les laisser pour aller acheter chez des Chinois, chez des Turcs, chez à Dubaï, à alors qu'on a nos frères sénégalais. On n'est pas aussi en train de dire que jënd leen saako yi toog ci table bi tey y a des y confectionneurs de sacs qui sont un peu partout dans le Sénégal qui font d'excellente qualité sénégalais bu nekk ren bu jëndalee doomam sac bu jëndalee doomam sac xaalis boobu fii lay des ci artisan bi ñu koy jox. kooku day jox jabaram mu dem marché jënd carotte jënd légume jënd chou xaalis bi fii lay des kooku ci xaalis bi lay jël fay courant xaalis bi ak TVA boobu fii lay des kooku ci xaalis boobu lay jël jox ay doomam ñu dem jàngi ñu jënd goûter donc il est question de dire nañu fexe ba xaalis bi des fii ñu jënd ay saak yoo xam ne suñu ay morom suñu ay su ñu ay sœur sénégalais ñoo fay confectionné et ñu bàyyi soxor bi bàyyi jéggaane bi encore une fois pour yenn sénégalais parce que ñu bëri ñu ngi commencé am conscience que ne le patriotisme économique xeex la donc euh, je vais vous lire la déclaration de la campagne de sensibilisation vite fait dans toutes les nations du monde le savoir-faire local et le consommer local sont des facteurs de développement indispensables et ce dans tous les domaines spécialement économiques les conséquences de ces habitudes on dénomme atouts directs et indirects, tels que l'autonomisation et l'indépendance financière, le bien-être des populations par le renforcement d'un sentiment d'appartenance à une nation et à la représentativité, à une identité culturelle. À titre d'exemple, au Sénégal, prenons le, le, camp, le cas des artisans de l'industrie de la mode. Ils sont très talentueux et créatifs, particulièrement reconnus dans la sous-région et très nombreux. Pourtant, ils font face à certaines problématiques conjoncturelles et structurelles. En effet, malgré la conscientisation plus forte des Sénégalais sur l'importance et les avantages de cette habitude, les Sénégalais l'appliquent à petite Les Sénégalais l'appliquent à petite échelle. Ceci résulte de plusieurs causes comme le manque de moyens de communication des artisans, de faire connaître leur production, le faible pouvoir d'achat de la plupart des Sénégalais ou encore l'actualité sanitaire du corona qui a restreint, donc là on est à l'année dernière, qui a restreint, voire stoppé la majorité des activités économiques et sociales de tout un chacun, et ce, partout dans le monde. Pour, pallier aux problématiques énoncées, L'initiative lancée par l'artiste rappeur Simon Kouka est de faire du consommé local une arme de construction massive en faveur des artisans pour participer à l'émergence d'un Sénégal nouveau, avec la mise de son art au service du développement local. Simon veut mettre les pleins feux sur le savoir-faire local à tous les niveaux, en débutant par le secteur de la cordonnerie, à travers la confection de sacs à dos, C'est à travers des moyens d'expression artistique novatrice, unique, inclusive et participative qu'il va exécuter cette initiative. Autrement dit, lors d'un temps dédié, il va créer une bombe à fort impact constructif pour valoriser le talent et potentiel locaux du pays dans le secteur de la cordonnerie pour commencer, pour, dans le secteur de la cordonnerie pour commencer. En utilisant les atouts de communication, il va également pousser à de nouvelles habitudes de consommation de la part des Sénégalais. Cette initiative consiste à développer, à créer dans l'agenda culturel et économique sénégalaise un moment spécifiquement consacré au savoir-faire local, un temps marqué par une campagne composée d'une multitude d'actions en faveur du savoir-faire et du consommé local. Donc c'est la déclaration de la campagne de sensibilisation qu'on déclare vraiment ouverte. Euh, à partir de ce jour, nous allons utiliser notre casquette d'artiste pour confectionner un morceau. Il y aura des caravanes de sensibilisation à travers justement euh, les animateurs qui vont nous accompagner avec des camions sonorisés pour inciter les Sénégalais justement à acheter des articles locaux. Donc nous lançons vraiment cet appel aux Sénégalais. On supplie même les Sénégalais. Aujourd'hui, comme vous le savez, le corona a montré la limite de pas mal d'États et de systèmes étatiques. Aujourd'hui, si on ne se retourne pas sur nous-mêmes, si on ne produit pas nous-mêmes, on aura toujours des difficultés et nous verrons notre président aller quémander, aller mendier du blé pour faire du pain. Parce que sinon, les serrères vont se lever contre. contre lui et vont l'attaquer. Quand on voit en Afrique, on a les terres les plus riches, arides, on va quémander à la Russie du blé. Il y a un problème. Aujourd'hui, alors qu'on peut avoir du pain à base de maïs, à base de manioc, à base de fognon, à base de le nid farine, Donc, la problématique, est large. Mais aujourd'hui, justement, vu que c'est bientôt la rentrée scolaire, dans un mois, la rentrée scolaire, nous lançons ce message aux Sénégalais. Nous supplions les Sénégalais nañu bàyyi jéegaane ne yenn Sénégalais yi bàyyi nañu bàyyi xel ci yenn yi maa ngi koy wax sànq ba tey de yéen a koy bàyyi xel pour titre yi quoi ñi bëgg ñu la di cliquer la surtout site yi la bàyyi leen xel ah, waxuma Sénégalais yëpp nag balaa ñuy ne Simon nee na suñu xalif généraux yi suñu chef coutumier yi dama ne yenn sénégalais yi encore une fois dañu bàyyi jéegaane dañu bàyyi soxor bi dañuy jënd ci suñu ay mbokk sénégalais xaalis bi di des fii xaalis bi di circuler fii comme saa au moins ñëpp ñëpp mën ci bénéficier suñu koom-koom gën a yokk et qu'on passe à une autre échelle ce que la Chine et la Corée a réussi quand on pense que en 1960 ñun ñoo bokkoon PIB Corée tey Corée mu ngi beneen level parce que enracinement d'abord ñuy soog a wax waxu ouverture donc enracinement bi na commencé par ñuy sol loo xam ne suñuy artisan yi ñoo koy def moo xam yére la dàll ñuy jël ay saak yoo xam ne suñu ay artisan ñoo koy def ñuy lekk loo xam ne tamit ñoo koy bay donc c'est vraiment ça le concept sur lequel on mène un combat et ce yàgg na et on aimerait vraiment que sénégalais yi bàyyi ci xel Je vais donner la parole à nos artisans qui sont à l'origine justement de ces sacs. Il s'agit de Moussa, Moussa Gay, qui justement confectionne ces sacs en semi-cuir que vous voyez, les sacs en cuir. Diouf, c'est lui qui fait tout ce qui est sac en wax et le mélange cuir-wax aussi que vous voyez à, à, à, voilà mais nous allons donner la parole à Moussa Moussa bi ñuy commencer job am na fu ko fekk mais je crois qu'il est mieux placé pour expliquer tey on commence avant de lui-même donner la parole je tiens vraiment à remercier euh, l'AIBD l'AIBD qui a été le premier à nous lancer une commande pour les élèves qui sont aux alentours des aéroports moo xam Diass la Saint-Louis Cap Skirring Ziguinchor un peu partout donc il croit au concept consommer local il croit au concept jàng jee fii donc je tenais vraiment à les remercier je tiens aussi à remercier la mairie de Ouakam vous avez vu l'adjoint au maire madame le maire qui était là tout à l'heure elle est venue elle a vu les sacs aussitôt elle a passé une commande de sacs pour les élèves de Ouakam donc c'est de c'est ça qu'on attend des Sénégalais et 4000 sacs yooyu si chaque mairie faisait pareil di ngeen gis ñoom Moussa ak Diouf bu ñu jëlee la parole ils seront obligés de yokk main d'œuvre ils seront obligés de demaat marché jëndaat ay marchandises xaalis bi di des fii donc c'est cet appel là qu'on lance aux sociétés euh, l'ADPME aussi contacté et aussi à travailler avec eux c'est ces sacs justement euh, avec euh, l'étiquette ADPME Euh, 3FPT aussi, nous vont nous commander des sacs parce qu'on est en partenariat avec le ministre de l'Artisanat qui les a contournés dire directement, le port autonome de Dakar ainsi que la, que la ville de Dakar. Voilà. Il y en a d'autres aussi, Gétran, qui nous ont contactés pour commander des sacs. Le COSEC aussi nous a contactés pour commander des sacs. Et on attend d'autres Sénégalais, on attend d'autres structures étatiques comme privé pour justement, il y a ProMobile aussi, je ne veux pas faire de la promotion, mais ProMobile aussi nous a commandé des sacs pour justement les remettre aux, aux familles défavorisées et aux élèves justement qui sont aux alentours de leur business à eux. Donc pour dire que les commandes ont commencé, mais on continue aussi à attendre les autres. Il la MCU aussi à travers son président directeur général Amadou Falba qui a promis de nous commander des sacs. Non, pas deux. Lolo, après, on va le régler en interne. Donc, on attend les commandes de Sénéweb, on attend les commandes de Enquête, on attend les commandes de Sen-TV. Hein? Salam, salam Sénéweb. Non, Koko par force. Salam par force. IGFM, Youssou, on attend vos commandes. ITV, on commande, moi, Bosby. Arcade, mon Sen-TV, DTV, Euh, Jupiter moo fa nekk wala kan moo fa nekk Jupiter Jupiter dina commandé 7TV Maïmouna dinaa seeti Maïmouna on attend ses commandes Dakar TV ah bi Dakar TV la donc on attend vos commandes donc je vais donner la parole à Moussa Moussa bi ñuy commencé collaborer am na fu ñu ko fekk tey Moussa il travaille avec des gens yoo xam ne ay artisans yoo xam ne ñii ils sont de Kaolack ñii ils sont de Matam ñii ils de Saint-Louis pour confectionner ces sacs que vous voyez Donc on ne s'est pas limité aux artisans de Dakar, mais on, on, a, essayé aussi de ratisser large. De même qu'en banlieue Diouf, après Guédiawaye, moom it dina expliquer. Donc on donne la parole à Moussa bi confectionner sac yi. waaw Moussa kaay toog salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp maa ngi nuyu yéen ñëpp di nuyu journaliste bi toog di nuyu sénégalais di nuyu sama mbokk artisan bi Diouf di wax ngeen tàccul ma grand si moom ndax am na njëriñ vraiment man euh, ba may commencé liggéey yàgg naa si trop depuis 2016 2014 maa ngi ci. mais nekk mu maanaam nekk mu woon euh, liggéeykat boo xamante ni ku ñu xamoon la ko mais depuis mu contacté ma euh, yóbbu na mu foo xamante ni tey mun naa ne xalaatuma woon sax ni métier bi may def dina ma ko may parce que benn benn confectionneur bu nekkoon laa si rek di liggéeyal yenn élèves yi nga xamante ni ñoom laa doon liggéeyal mooy samay waa koñ wala ay ñi nga xam ne ñu ngi may fekk ci Facebook beeg yooyu nekkul liggéey boo xamante ni gëmoon naa ni euh, industrie la mën na nekk industrie ci Sénégal. grâce à Simon tey wan na ma ni carrément même bu fekkee da ngay formule sax war na mën a nekk industrie vraiment maa ngi lay remercier grand di jël remercier wu Sénégal yëpp di ko teg sa loxo parce que gis naa gars yi dañu lay suivre ci internet beeg YouTube beeg réew vraiment merci beaucoup. jusque pour wax ni rek euh, Simon tey dafa day contribuer wu ci ci vie Sénégal parce que nekkul si ay saak la ko commencé comme ni mu koy waxee mu ngi ko commencé si daal di yóbbu ko ci yére yi ba yëgal ko ci saak yi mu nekk affaire boo dafa war a nekk loo xam ne Sénégal ñun ñëpp dañ ko war a rafetlu comme ni mu ko waxee léegi ñu jàpp ci ndax mu mën a dem comme ni mu koy waxee ñun bëri nañ tey ay morom yoo xamante ni ñii jël nañu mbokk bi jël yoonu géej gi ñii ñu ngi wut ñu ngi wutantee dem Europe pour ñàkkante mais ñun dañu gëm ni mën nañ tekkee suñu réew si buñ ko gëmee bu ñu gisee tamit genre grand yi nga xam ne ñu comme si moo di ñu encouragé dinañu gën a may permettre ñu mën a toog fii liggéey mu nekk liggéey boo xamante ni nekkul pour man rek tey boo xoolee maanaam quartier bi ma dëkk la tàmbalee bari na ñoo xamante ni tey ñu ngi liggéey ci man te bu njëkk sañu ma ko def tey boo xoolee ñu jéggaani ko yóbbu ko ba nga xam ne tey dinañu embauché ñoo xam ne par exemple du ma ne embauché sax jël ñoo xam ne dañuy jógee ci ci ci régions yi bëri ci Sénégal ñuy liggéey ak ñoom ñii dañuy déplacé wu ñii dañuy dagg jox leen ñu dagg ainsi de suite ainsi de suite vraiment mu nekk affaire boo xamante ni rafetlu nañ ko trop te di ñaan yàlla lépp lu nga xamante ni sumb nañ ko ci tey mu gën a avancé incha allah On va donner la parole à aussi, Diouf, Mohamed Diouf, qui est de Guédiouaï, qui confectionne aussi les, les sacs